débat bi mooy euh, est-ce que dañuy tëgg élection bi date bu bees ah, en en maintenant laaj ko laaj ma ko en maintenant euh, la liste des candidats yi nga xam ne moom moo moom la conseil constitutionnel validé waaw mais ci concertation yi pour les hommes politiques dañuy dañuy dañuy loolu bu ma ci dugal ngir yàlla ay concertation la ci concertation yi waay may waxtaanal ña ngay waxtaanal xaw ma leen waay dafa am un débat gars ne bu ñu génnee le vingt cinq avril le vingt cinq euh, février dañuy duggaat ci processus bu bees dañoo war a démarrer waat processus bi avec le dialogue ñu am une élection inclusive mënul nekk c'est nekk mënul nekk te du nekk dama wax ñaari wax de mhm. mënul ne c'est du ne bés boo ko déggee nga wax ma ko dama ne mënul ne c'est du ne mënul ne c'est du ne c'est président République amul pouvoir boobu def ko alors président de la république amul pouvoir def loolu amatu ko jéem na ko am ñu dindi ko amu ko ku koy wax danga koy sonal rek ñun sénégalais nanu màndu si suñu bopp màndu si suñu njaboot ñu ñoo ne démocrate lañu ñoo koy wax di ko ngan na ngandaloo ci dëkk bi mm-hmm. ñoo ne républicain lañu di ko ngan na ngandaloo ci dëkk bi ñoo dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel atte wax man na la bañ a neex nag parce que man la may naqadi si justice bari na lool ci samay atte mbokk yi may def mais am na damay seet nu may àndeex moom nu may dundeex moom ba baneen ma dabu wante ñëw ne lii neexuma daf fiy jóge yaay kan mënta nekk du ne ku ko jéem a def yaa ngi def forcing léegi man tuddumaay forcing dama ne dune sama kàddu laa joxe man mënul ne te du ne at mënul nekk te du ne maa ne mënul ne maa du ne ñu wax lu leer na sama engagement